mais qui n'a pas d'opportunité pour s'éprouver. C'est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ces talents dont il a besoin pour pouvoir servir son pays à tous les niveaux. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a aucune différence entre eux et nous, sauf un nombre d'années plus important dans l'état civil, un ventre protubérant, je me suis rasé ce matin, et des cheveux gris. Sinon, nous avons la même formation, la même envie de servir, la même envie de voir notre pays figurer parmi les meilleurs au monde. Je l'ai crié urbi et orbi. Je l'ai crié dans le Ferlo. Je l'ai prié à Josanto. Je l'ai prié, je l'ai crié dans le Djiriji, partout, qu'il faut que l'on arrête d'avoir un Sénégal à deux vitesses. un Sénégalais à part entière et un Sénégalais entièrement à part. Ce n'est pas tenable. C'était prévisible qu'il arriverait un moment le couvercle sauterait. Et si nous n'y prenons garde, le couvercle va sauter imminemment et on aurait du mal à le rabattre sur la casserole. Qui serait le perdant Chacun d'entre nous. L'on ne nous a pas confié ce pays pour que nous croisions les bras, pour voir et observer ce pays aller en déliquescence. L'on nous l'a confié pour que nous puissions proposer des modes et des méthodes alternatives de gestion, d'amélioration du quotidien de nos concitoyens, mais de compassion, d'amour et de tendresse. Que nous puissions répondre à cela qui, il y a 12 ans, bientôt, nous ont confié leur sort, confondant celui-ci au nôtre, pour que nous, nous fassions un seul et même peuple, avec un seul but, avec une même foi. Mais je dois avouer avec vous que nous nous sommes écartés de ces objectifs. Nous nous sommes écartés de cette finalité. Et demain, quand le moment viendra de rendre compte, nous serons tous mal barrés pour paraître fiers à côté de vous. Le soir ou deux jours avant l'installation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'étais invité par notre ami euh, DJ à l'Université de Dakar. La soirée électorale, la soirée de la victoire, une belle soirée. Je disais à DJ, que ma fierté voir ce campus où j'ai mis les pieds pour la première fois en 1978 dans le département d'anglais. Je disais que cette jeunesse est au centre de la politique de développement que De cette jeunesse dépendrait énormément de choses. à cette à l'époque, vous pouvez avoir foi en nous. Vous ne le laisserez pas se tromper. Je ne le laisserai pas se tromper. Vous et nous avec. Cette jeunesse s'est rappelée à notre souvenir. Nous avons le devoir de marquer une pause et de les écouter et de les entendre. Arrêtez de les menacer et de les terroriser. Ça ne passe pas. Ils ont beau être jeunes, j'allais dire, vous avez beau être jeune, que vous avez cette même conscience citoyenne. Ce n'est pas au bout de la baïonnette qu'on va vous obliger à taire votre, votre devoir. Ce n'est pas avec le bout de la baïonnette qu'on va vous convaincre que vous devez rester chez vous. Cela fait un an que nous sommes chez nous. Cela fait un an que vous êtes chez vous. La pandémie est passée par là. Et aujourd'hui, un vent chaud qui souffle dans toutes les directions perpétue cette résidence à domicile. S'il vous plaît, jeunesse de mon pays, n'écoutez ni les uns ni les autres. Il en est beaucoup qui sont apparus devant vous ces derniers moments. J'allais dire qui ont comparu devant vous ces derniers moments. ils n'en ont eu que pour eux-mêmes. Les courses-poursuites, les batailles, les coups de feu, les coups de lacrymogène, et avec ces milices, les coups de bâton, les tortures n'ont pas arrêté. Donc il est important que nous comprenions que nous devons marquer une pause et parler à notre jeunesse, parler à nos enfants, leur faire entendre le langage de la vérité, certes, mais celui de la sagesse. Il est important également que nous parlions à nos autorités et qu'on leur fasse entendre le langage de la vérité, mais également celui de la sagesse. Cela va dans tous les sens. Et nous sommes au bord de l'apocalypse. Il est vrai que pour faire de la surenchère, on nous a fait comprendre qu'il y avait des terroristes qu'il y avait des djihadistes. Mais ce n'est pas chose nouvelle. Il y a trois ans, nous avons effectué une tournée dans le Sabadola. Nous sommes passés par le village de Khosanto après Saraya. Et à Sabadola, l'on nous a appris que tous les vendredis, il y a des prêcheurs qui traversent la frontière, un pays voisin, vous pourrez consulter avec votre géographie, qui viennent avec leur moto et leur calache. et qui font des prêches. Et après, à la fin de la mosquée, ils recueillent, ils tendent la sébille et ils retournent. C'est connu. Il y a deux ans, moins de deux ans, en tournée dans le Ferlo, je disais que le Ferlo est un réservoir de djihadistes parce que vous trouvez des hordes et des hordes de gamins qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y en a pas. Vous semez en eux-mêmes les germes d'une rébellion future parce qu'ils ne se sentent pas intégralement sénégalais. Une célèbre réplique d'un célèbre homme politique de notre pays est encore dans nos mémoires. Il ne m'a pas fallu une seconde pour reclaquer ma langue et préciser qu'il était important que tout le monde sache. C'était pour prendre date pour des événements comme celui-ci. Comme on dit chez nous, afin que nul n'en ignore. Nous devons, je disais-je, saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Parce que ils n'étaient pas sortis pour s'en aller définitivement. Ils ont quitté père et mère, peut-être poursuivant la clameur et le brouhaha, pour enfin subir un sort fatal sur décision divine. Combien devrons-nous être à partir sur fond de bêtises humaines avant qu'on ne se rende compte que nous avons fait fausse route. Combien Un seul serait parti, que tout le monde serait parti. Ce n'est pas juste. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicote que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas Pourquoi Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité. Un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, qui, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre, vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts Au moment où le navire prenait eau de tous bords C'est le moment. Now is the time. Il est des spécifications dans ce dossier ou dans cette affaire ou dans cet environnement qui ne m'intéresse pas. Je suis avocat, il est des questions dont je ne me mêle pas. je suis médiateur, il est des questions devant certaines institutions de notre pays dont je ne me mêle pas. Mais lorsqu'il y a la chienlit qui s'installe, lorsque l'on fait fuir les capitaux directs étrangers, lorsque aucun investisseur n'a plus confiance en notre pays, lorsque notre économie déjà très belle devient chancelante, lorsque depuis quelques années l'on ne va plus à l'école, on ne sait plus à quel moment le calendrier scolaire commence ou se termine. Nos médecins et notre personnel médical s'époumonnent depuis plus d'une année à nous sortir de cette pandémie. Avec succès d'ailleurs, je leur tire mon chapeau et les félicite. Ils ont déserté leur domicile. Et qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange? Aux premières heures de l'état d'urgence, c'était des coups de chicotte parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Parce qu'à 21h, ils étaient tous dehors en train de trouver un bus qui les conduirait à demain. Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que nous n'avons de compte à rendre à personne, lorsque nous nous gonflons et nous bombons le torse parce que nous, on nous aura critiqué, mais l'on ne fera jamais œuvre utile, je puis vous l'assurer. Je vous le rappelle, En 2004, quand j'ai accepté de vous servir comme conseil spécial, je vous disais que je suis prêt à faire chemin avec vous, à la condition que je puisse toujours vous dire ce que je pense dans mes propres mots. Vous m'aviez répondu que c'était adjugé, comme on dit à la barre des criers. J'en fais usage. Je n'ai pas toujours la meilleure écoute, Je n'ai pas toujours les meilleures réactions, mais ça c'est mon affaire. Il s'agit de moi, il ne s'agit pas du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal, dans son entièreté, le Sénégal du dedans et le Sénégal de la diaspora, s'unit comme un seul homme. J'ai frémi hier à la place Vendôme à Paris. À ce moment-là, on a le devoir de les écouter. J'ai suivi les interventions. J'ai suivi toutes les interventions. Si j'étais professeur et que je devais apprécier, j'aurais dit à refaire. À refaire ou alors qu'on se taise. Et en se taisant, c'est un gros mot que je vais utiliser, on aurait trahi une confiance qui serait investie en nous. Jeunesse du Sénégal, d'ici et d'ailleurs. ce pays ne nous appartient plus, nous autres, avec nos 60 balais bien sonnés. Il vous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. Ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Vous en avez les ressources parce que le spectacle que j'ai vu avant-hier à la télévision de ces jeunes avec un brin de conscience subitement installé en eux, donnant de l'eau, embrassant les, services de, les, les agents des services de l'ordre, les applaudissant au passage, après qu'ils aient guerroyé âprement, je me suis dit que ce n'est pas trop tard. Il y a toujours un brin de sursaut qui pourrait émerger. Et c'était vraiment de très très jeunes enfants. Parmi eux, des filles qui venaient à côté des agents des services de l'ordre, voir un peu de quoi leur vêtements étaient faits. Certainement nourrissant en eux-mêmes un jour de pouvoir servir, de pouvoir se sacrifier, donner de leur vie pour que les nôtres soient sauves. Pourquoi ne pas déjà en vous-même, refusant toute manipulation d'où qu'elle vienne, d'une part, refusant toute provocation d'où qu'elle vienne, d'autre part, vous liguez comme un seul homme et commencez à organiser vos brigades dans vos quartiers. Cela a commencé déjà à se faire. À identifier ceux qui ne sont pas des vôtres. À les signaler, à les pourchasser. Aux HLM de Rufisque, ils ont fait pareil. Quand d'autres personnes venues d'autres quartiers voulaient attaquer, ils se sont dressés contre eux. Il n'y avait pas d'agent de police ou de gendarmerie. Je voudrais rendre grâce aux autorités religieuses de notre pays. Inlassablement, ils ont lancé un appel strident à la paix. Toutes confessions confondues. Je prie Dieu tout simplement que leur voix soit entendue et que l'oreille qu'on devrait leur prêter ne tarde pas à l'être. Sans eux,

ils seront là pour nous rendre à Dieu. Mais alors, pendant qu'il est encore temps, accordons-leur le respect qu'ici, celui-là auquel ils ont droit. Quant aux entreprises internationales, qu'ils ne perdent pas espoir en ce beau pays dans lequel ils ont beaucoup investi. Le Sénégal, en dépit des soubresauts très récents, est un pays charmeur, avec une belle économie, calme et serein. Si on devait calculer ce que les économistes appellent le risque pays, on aurait eu encore, il y a une semaine, le coefficient le plus élevé. Mais avec ce qui s'est passé, je ne doute pas un seul instant qu'il soit au niveau des carreaux. Mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour le surélever. Parce qu'ils sont nombreux, les amoureux du Sénégal à travers le monde, à déplorer ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ils ont hâte que ça cesse pour qu'ils reviennent. De grâce. n'hypothéquez pas votre avenir, jeunesse de mon pays. Revenez à de meilleurs sentiments. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de ceux-là qui veulent vous faire chanter ou marcher. Revenez à la raison parce que vous en êtes capable. N'entrez pas dans ce jeu de marchandage. Le médiateur ne vous offre rien qui puisse être marchandé, sauf un discours de raison, un discours de sagesse, un appel à la sérénité, un appel à, diviser, à diviser autour de ce que nous avons en partage et pour lequel je prie Dieu, nous n'ayons jamais à le partager. Que le soir, nous soyons en sécurité dans nos chaumières. Que le matin, nos enfants bien lavés puissent aller à l'école sereinement. Que celui qui va au boulot, sauf exécution d'une décision divine, ne se heurte pas à l'impossibilité de regagner sa famille. Que la dame en parturition en voie d'accouchement, ne sois pas sur une charrette, traînée sur des routes chaotiques vers un inexistant, une inexistante case de santé ou un baobab ancestral auquel on prête énormément de vertu. C'est de notre âge. Le Sénégal des autoroutes, le Sénégal des beaux immeubles, le Sénégal des grandes richesses, des belles bagnoles, ce n'est pas le Sénégal. une division équitable des richesses de ce pays devrait pouvoir permettre à ceux-là qui ont les moyens de s'acheter de belles bagnoles, on ne s'y oppose pas, mais que ceux-là qui n'en ont pas les moyens puissent disposer d'un petit véhicule pour les besoins de la communauté rurale ou du village pour transporter les personnes en cas d'extrême nécessité. Et qu'on se plie à l'ordre de la foi et qu'on se plie à l'ordre du savoir, et qu'on se plie à l'ordre de la croyance, et qu'on se plie à l'ordre de l'amour et du respect de l'autre. Aucun d'entre nous n'aurait souhaité voir sa famille dans certaines circonstances. Et vous n'avez que cette ambition, les tirer d'affaires, améliorer leurs conditions de vie, leur construire une maison à la place de la case, demain une maison, une chambre, et demain une deuxième, une cuisine à l'extérieur, et tout y quanti. Nous avons tous connu ça. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'argent à la bouche. Nous nous sommes faits petit à petit. Et vous en êtes capables, nom de Dieu. Vous en êtes capables. Vous en êtes capables. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien de vouloir bousculer un pays ou un pouvoir démocratiquement mis en place Alors que le respect du calendrier démocratique devrait être connu et respecté de cela qui semble être derrière et qui n'apparaît jamais en avant. Mais il faut qu'il ait de l'écoute. Et cette écoute, encore une fois, ne viendrait que de Monsieur le Président de la République. On aura tout essayé. On se sera agité que si vous ne preniez pas les choses en main, qu'il n'y aurait aucune suite favorable. Vous avez dû vous en rendre compte par ceux-là qui ont été délégataires de votre mot. J'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres. Et depuis que mon enfant Abdoulaye est parti, avec cette marée humaine qui est venue l'accompagner, je n'ose plus être médisant vis-à-vis -vis de qui que ce soit. Je n'ai plus le droit. Je n'ai pour eux qu'amour et affection, parce qu'ils me l'ont démontré dans des moments de compassion où ma famille et moi-même en avions fondamentalement besoin. Mais qu'ils sachent quel que soit l'amour que j'ai pour vous, que le Sénégal est au-dessus de tout. Et autour de ce pays que nous avons en partage, l'on s'y retrouve et l'on se parle. L'on ne peut pas s'ignorer, l'on ne peut pas faire semblant de ne, de ne, pas se voir. Je suis suffisamment gros pour être visible à l'œil nu. Qu'on sache qu'il y a une médiature que vous avez mise en place, qu'il y a un médiateur que vous avez nommé et que vous avez l'obligation de solliciter lorsque le pays tangue dans des domaines de sa compétence. C'est tout. Oh, un autre va être nommé incessamment. Mes chers collaborateurs sont dans la salle. Je leur dis au revoir parce que ça s'achève. Ils m'ont accompagné, ils m'ont fondamentalement bien accompagné. Mais dans quelques semaines, ce sera bientôt terminé. Et cette page sera tournée dans l'histoire de ma vie. un autre va prendre ma place, mais que celui-là aussi soit accompagné par l'État et la République. C'est ainsi que ça fonctionne. Le combat, ça n'a pas d'importance. Ils ont essayé, tout le monde aura essayé, vous en êtes, vous en êtes témoin, mais je ne succombe pas à ça. Je parle à ma jeunesse, à votre jeunesse, Monsieur le Président de la République. cette jeunesse qui vous accompagne, j'allais dire cette jeunesse qui vous a beaucoup aimé, qui vous a suivi sur les sentiers du Sénégal et qui est aujourd'hui orpheline de vous-même, de votre présence, de votre rire et de votre sourire. Cette jeunesse qui n'a plus personne pour la prendre par la main et la guider et l'accompagner vers des sentiers plus lumineux. Vous en avez les moyens Vous en avez les ressources, vous en avez la foi, faites usage. Et ce sera tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. suñ moo dagg sa didd saafir amaani ansuraka bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi siyaar mbokk yëpp di nuyu mbooleem sénégalais ak gan yi ñu am sénégalais yi dekk ñun ci réew mi ak sénégalais yi nga xam ne ñu nga bitim réew te seen xel yépp tourné wu ci mu Sénégal seen xel yépp ñàkk dal ndax li xew ci réew mi ñoom itam ñuy daje walla di ko jéem ci réew yi ñu nekk pour di wane seen bopp walla ñuy fokk ay xam ay waxtaan pour ay pexe ba réew mi daal léeg-léeg ñu am ci njëriñ léeg-léeg mu metti ndax sore rek metti na waxatuma ak nag nga daan am di yónnee sa réew jàngoro bi fi jaar depuis un an tax ba loolu mënatoo ko ba noppi nag ngay dégg sa ay doom seen ay jarbaat di faatu walla ñii di gaañu gaañu yu metti gaañu yoo xam ni naam ci waa al euh, ngembal der yi tàkkal der yi la wala ci ñi nga xam ni ñooy sivil yi loolu yëpp benn jaaduwu ci may nuyu suñu kilifa yi fi nekk ñoo gën a kawe ñëpp te foofu laa waroon jiite muy kilifa diine yi déglu nañ leen déglu nañ leen bu baax a baax a baax a baax wax nañu gannaaw tey te incha allah tant ñoo ngi fi duñu foofu noppi naam déglu bañ leen war a déglu defaguñu ko ndaw nag bu naree réer wala mu nar a sànku bu ko mag di wax du ko déglu ndax day foog ni position ya mu yor tax na waratul déglu kenn day foog ni position ya mu yor ku ko ñaan njekk sañ naa bañ waaye mag moom dafa di ëkk wala mu di xeer ndaw di nen bu dalee ci kawam mënul muusuwaane ba gaañ ëkk boobu ñun dara di xew di leen consulter bu dara xewee di jël seen xalaat ak seen recommandation di ko jëfe bu ñu ko defee duñ juum de bu fekkee dañu dañu réer ngir la wër ngir corne yi ngir klaxon yi ngir moto yi ngir laamaar yi ngir ngir ngir alal yi ngir ngir ngir su booba on va passer à l'essentiel am nañu yaakaar lool ci ki nga xam ni moo fi toog wax nañu ko ko ay yoonu yoonu yoon naam na yàlla def ci moom déglu ba moom balaa dara di xew moon ci waxtaan ak ñoom toute confession confondue muy jàngu bi muy yeneen këru diine yi ndax ñoom ñoo ko ŋànk d'abord balaa muy egsi ci yeneen loxo bu ñu wootee woon tey ñun ñu woote fii ñay ñëw fee du ñu sax maasu ñuy ñëw fii du ñu seen maas ci at du ñu seen maas ci xarañ du ñu seen maas ci mën a joxe seen bopp lu ñu seen maas ci mën a jaayante kon amuñu ku leen sut ñu ngi leen di jéggalu ci li nga xam ni am na fi te ñoom ñu wax ci te ba tey jàpp naa ne nañ leen war a déggee nañ leen war a dégloowee déggewuñu leen ko dégloowu leen ko leen ko dégloowu bu ñu juddoo ñoo ñuy jox tur bu ñuy wuti soxna ñoom ñoo ñuy wutal wala ñi bu ñuy maye soxna yi wax naa ko sànq bu ñu juddoo ñoo ñuy jox toppatoo ñu jébbal na suñu borom ñooñu amul kenn sutu leen ci njut kon nag balaa ñuy xaar ba ñu tëral ñu ñu ñu jébbal suñu borom ñu soog a xam ne ah kii kat ndekete nañ ko teel a xam teel ko jox ormo teel a xam ay jikkoom ak ay sañ-samam ay capacité yàlla moo leen ñu leen dénk te dañ ñu leen di laaj yéen ba ñu leen dénkee réewum Sénégal jamono bu mu yëngoo lan ngeen jamono bu mu yëngoo lan ngeen ca def lan ca def mooy woote mooy wax mooy naqarul mooy am métit yaakaar ni bu ñu ko waxee ñun daañu dégg daañu déglu te ñu ko jëfe yàlla na yàlla def ñu am dégg-dégg bi ba mën leen ba mën jëfe seen ay recommandation lan ca def mooy woote mooy wax mooy naqarul mooy am métit yaakaar ni bu ñu ko waxee ñun daañu nekk xam na ni ci suñu région bii difficulté rek moo fi am régime boo xam ne stable na fi lool ba wóor péng amu fi gànnaay yi ñu ngi circuler les armes euh, de petit calibre ñu ngi fi circuler jënd ko ak jënd gerte caaf daanaka ñooyam dëkk bu ñu jege lool boo demee. man dem naa fa euh, euh, visite bind nañ ko rapport jox nañ ko borom réew bi wax nañ ko ca kaw ne ko fii c'est un lit de djihadiste parce que ñoom ñoo ñu ko wax. ne aljuma dañuy traverser frontière bi boot seen kalachnikov yore seen jakarta ñëw jiite wala ñu xutba tàllal loxo tàllal seen mbaxane lu ñu ci am jël delluwaat donc nekkul lu bees nekkul rek le 3 février ou le non non c'est ancien c'est connu booy demee Sédhiou jàdd seen ndeyjoor boo rombee dëkku Sadio Mané boobu song ji réji foofu yëpp pax ya fa nekk pour nit di fa jaar boo débrouillé ba egg mi dina soirée dàmmaat sa beneen day joor pour dem Marsassoum kamb ya fa nekk mais niroowul ni sax ña fa nekk jàppe nañ leen comme waa réew mi wax naa leen affaire u ferlo jooy naa ko moo tax may yooxu tout temps may reeteet ne leen Sénégal dañ ko def ay pàcc yoo xam ni ñii dañ leen jàppe sénégalais bu wóor ñii ñu jàppe leen sénégalais boo xam ne moom mën na xaar lu ñuy xaar nag amatu fi nañu góor góorgóorlu ci nit ñi nañu góorgóorlu ci yërmande nit ñi nañu góorgóorlu ci jigéen ñi nañu góor góorlu ci xale yi nañu góorgóorlu ci xale yu góor yi wutal leen xëy du fi jeex du fi xaaj suuf si yaatu na kenn du ma ni soxlawuñu su pome soxlawuñu carotte soxlawuñu pomme de terre soxlawuñu patate soxlawuñu ay jur yu ñu sàmm mais àll baa ngi fi mi ngi ne yàmbalang c'est très facile de mettre ça en valeur des militaires à la retraite y en a la tonne former les jeunes en instruction civique, les former dans les métiers de l'agriculture et du commerce. Mais c'est facile. Ça, ce n'est pas dans les discours, c'est dans la réalité. bu fekkoon xale bu ci nekk occupé nañ la am foo toog di fa am looy jël di dimbali sa waajur ku la woo ci leneen lu dul xëy wàcc naan ataaya toog sa biir kër doo ko wuyu mais bu ñëwee dajji benn bitik nga gis benn borom kër bu doy na man jël saaku ceeb bokk jël saaku meew bokk di waaxu di gestu ni kii amul lu ko neex mais sonn na yeneen dëkk yi xaaruñu lii am ñu def loolu xaaruñu ko lii am ñu def loolu dans des pays boo weesoo gànnaar yéeg foofu sëmul bu manqué rek c'est une rébellion énorme sëmul rek mburu rek bu manqué coow li ne tulle ak màlle kon ñu war a xam ne ñun nous sommes un peuple paisible ñu mën a gën a góor góorlu ci suñu bopp noppee wane image boo xamante ni ci bitim réew suñu réew d'abord ku ko seetaan di nga yedd sa bopp ci bitim réew di nga am naqar ci sa diggante ak sa bopp diggante ak foofu ña ngay liggéey ña ngay dajale ña ngay yónnee ña ngay tabax waaye loolu yëpp ku mer rek taal ku daaneel ku bët du sotti kon ñu mën a seetluwaat sunu bopp ni ko xale yi tàmbalee d'ailleurs déjà image yu ñu mujj gis fan yi di ñëw fekk takk der yi fa ñu toog jàmbarloo na ñoom ñoom bu saf-saf waaye ba mu taxawee seen am na fu seen xel dem ñu ñëw ay ndox xale yu ndaw ci ay jigéen ci ñoom sax d'ailleurs di leen may ndox di xool seen armure yi seen yére yi ni ñu ko defaree et tout ça xam ni la weesu ñoom déjà réccu nañ ko ñoo ñu raw te mën nañ leen jur xëy suñu ay sët ñu maasal mais noo raw ci xel noo ñu raw ci xalaat ñu ngi xool mag ñi ñoo ngi yor waaw leen yor te ñu bopp ñu jàppee ay njirim bu ñëw di raay suñu bopp bu amee juróomi dërëm jox ñu bu ko amul mu raay na yoo xam ne depuis un an ba ñu déclaré pandémie ba léegi ñoo ngi ci biti xamuñu lu xew seen kër ñoo ngi ci mbedd mi du ñu añ du ñu reer du ñu def dara parfois ñu nekk ci lëndëm gi di régler circulation torche sax duñ ko sont fatigués sont de courir dañu toog tokki daw dans des zones leen di jële des con mais c'est pas ça la vocation de l'armée la vocation de l'armée ce n'est pas de traquer du civil lañuy xaar ci soldaar nekkul di topp civil de pourtant ñun ñoo tax ñuy dem boo leen gisee biir région yi nekk dans le sud ñu gas ay pax def ay branche ci kaw dëkk ci suuf di toggal seen bopp di taaba taaba def fa un an ou un an et plus ñu mën leen jàmmal tuuti nekkuñu guñu nekk guñu état de siège ba ñu war leen génne ci mbedd yi ak seen ay chars de combat maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxee dafa war nekk des signaux de paix et de sérénité waaye bu fekkee foo dem rek gis euh, takk der taxaw euh, dégage non c'est pas ça un peu de correction pour nos population sans lesquelles nous n'existerions pas kon yàlla na yàlla def ci ñun woy yàlla na yàlla sàmm suñu ndaw réew yal na yàlla delloo si leen ñu mën a toog ci kër yi bàyyi seen i mag ña nga xam ne ñoom la ñu jiital ci kanam ñu waxtaane ko ak ñeneen ñooñ ko seqal ba jàmm ju yàmbalang dellu si biir Sénégal investisseurs yi fi ñëwoon bare nañu te seen alal yàqu bu ñu tiit na continuer di gëm na Sénégalu démb mooy Sénégalu tey naam am na ay loo xam ni xaw la ci ñagas les partenaire du Sénégal en coopération bilatérale ou coopération multilatérale loo xam ne nga ko seq ak benn réew wala da nga ko seq réew yu bare nañu jàpp ni Sénégal ba woon ba léegi moo fi ne seytaane nag day na dugg ci kër yëngal ko waaye du fi yàgg buñ ko daxee onze billahi mina seytaani rajim sax ci astaghfirullah sax ci je puis vous assurer que du fi toog du fi yendu parce que du fi xaj yàlla na yàlla def ndaw ñi déggante ak mag ñi ndax loolu mooy richesse réew mi ndaw topp mag mag yërëm ndaw suñu ko defee mu am jàmm xale yooyu tëdd te ñu jam leen balu fetal je puis vous assurer maa ngi koy wax kenn sànq man ki nga xam ne moo gaañu Bignona ba ma ko gisee mu tëdd deret bi du couler je pense à mon propre fils mort aux États-Unis sans personne pour le secourir bàyyi ko gisant dans une mare de sang en bordure de route quelle misère j'ai eu mal mais dama jàppee kooku na sama doom jàppee njaboot yu Sénégal yëpp ñi nga xam ne mën naa leen jur comme sama doom ñi nga xam ni ñoo ma mag comme samay way jur ñi nga xam ni ñoom ma am na foo xamante ni il faut que yërmande ñu jiital ko te yërmande boobu nag ca mag ñi lañ ko yaakaare ndaw ñi ñoom ñu toppante te jëfe ndigal asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf waaw da ngay laaj ndax am na ku mu intéressé waaw d'accord local ma benn liggéey bi